ma ko fierté Sénégal la woon parce que yàgg na génn représenté Sénégal ci biti kon tey Sénégal yëpp a ñàkk ñoom ñàkk nañ ñu ngi di jaay lu ñu bokk kon ñaan yal na ko yàlla yërëm xare ba àjjana te waree fa suuf ci kawam yàlla teg ci loxoom fi mu leen féete woon bur yàlla féete leen fa leen wax ñoo ngi mosow encore bu baax a baax parce que kenn ku nekk xam na fu waajur toll ci doom ni ko boo ko manqué rek yëg ko waaye mbirum yàlla nag moom noonu la fii kenn saxu fii kenn saxu fii ñun ñëpp lañuy dem ba tax na ñu nit buñ ci toolee yàlla nañu yàlla yërëm parce que ñëppay dem àla ko leer xam ko ñaar bu baax a baax di ko ak yéen coono bi comme ni ngeen ko waxee rek dama génnoon nekkuma fi waaye ba affaire bi amee yëg nañ ko ba jour boobu sax accepté naa def interview ndax loolu puisque jaale ko puisque Sénégal yëpp a ñàkk vraiment na masaw bu baax a baax a baax a baax daal xam nga leen wax yàlla na yàlla yokk taxawu euh, ñu yéex koo fayante vraiment comme ni nga wax rek suñu adversité lépp ci tàkkusaan benn tàkkusaan la yem kenn ku ci nekk ginnaaw yàlla sa intérêt sa si sa morom la nekk parce tey bu ñu bëriwul duñu fayeku ñu am ñu yóbbu kër ga ba tax na ay adversité lañ pour benn tàkkusaan ay bu loolu weesoo ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk wallaay la azim lu ma yéene sama bopp laa yéene Balla laa yéene keneen ak keneen keneen nekk xam na làmb lu ci nekk coono moo ci nekk te ñëpp nattu moo ci dugal rek wallaay keneen ku doon tànnal sa boppu métier def naa di nga tànn leneen dama gëm ne làmb ñu natt bu ñu yàlla nattoo la koo tax nga xam nga dañ koy nangu rek te jéem a rafetal rek jéem rafetal vraiment mais di jaale sa Thiès say rakk say mag yëpp say bu baax a baax a baax la ñu bokkoo comme li nga wax xam nga maa waxoon ñoom père xaar leen bu ma ñu mënta ñu mënta ñàkk nañ dem mais ñun xaar bu ma ñëw ñu ànd bokk dem bokk bokk bi di leen masoo encore bu baax di leen jégalu kàddu yi jaar muy bari dañ fi ñëw rek pour masoo bokk yéen coono bi jaar fa rek suñu borom kon ngi

di la siyaare di la jox sa wàccuwaay waaw di wax na ma ngi am kontaan bu baax am mbégte di nuyu xaalis nga yëga di suñu nit ku baax wax dëgg yàlla fi ñu yàgg tey jii xaw ma rafet léegi lañu si di nuyu Pape Is maa ngi lay ziar di nuyu Baye Sow ngay nuyu bu baax a baax ak Fall maa ngi Tool tamit maa ngi leen di ak Ibulaay Ibulaay maa ngi bu baax yaaram maa ngi lay nuyu baax a baax di ne kontaan naa baax baax baax ci li nga xamante ni déplacé nañu ko ñëw fii ndax Babacar Diagne naa leen ci affaire bi. depuis boobu ba léegi wane ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp lu ñu ñor suñu baba nag. moom exemple la ci exemple la ci réew mi. nu mu nekkee exemple noonu la ko mbéy nekkee noonu la ko Moustapha Gueye nekkee noonu la ko Yékini nekkee ba ñun tey suñu génération yi ñëw moo du ñëpp xam nañ ne maa moom ay rivalité buñ koy wax sax man ay rey daf may jàpp ndax liggéey lañ bokk. moo may may mu koy may. bu xeex bu xuloo mais ci kaw liggéey bi ñu wax door ko làmb réeróowuñu chaque jour dañuy nekk ci whatsapp bi di waxtaan li nga xamante ne làmb pour ñu jëm kanam amul réeroo kon vraiment pour ñu ko xamul rek ñu leeral leen ko tey rek nga xam ne di làmb rek la naa ne ni ma ñàkkee sama papa noonu la ñàkkee papa papam ni ñu ko ñàkkee noonu laa ñàkkee sama papa ndax ñëpp xam nañ ne waajur moom boo ko ñàkkee météo bi ci nekk rek ku ko ñàkkul mënoo ko xam moom xam na ko kon loolu même chose kon ñu ñaan yàlla daal vraiment euh, seen déplacement bi yàlla nañ ko yéex a fayantu yàlla na yàlla fay tànk yiw yàlla na yàlla dox tànk ciyaaba ak lépp li nga xamante ne bëgg nañ ko rek yàlla na ko suñu borom defal donc vraiment kontaan naa trop toogaay bi yàgg na te kenn amul jot ñëpp xam nañu jot dafa manqué waaye kenn ku nekk ci jotam nag bu la ko xajalee indi ñëw nga seesi la mënoo ko fay yàlla man seen fay nag yàlla nañ suñu borom fay journaliste yi nag boobu ba léegi xam naa ne moom ñu ngi donc vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm. Abdoulaye Aziz na fekkee bi yàlla dafa dogal nag suba ba léegi dafa ñàkk jot. fekk dafa ñëw. ñëw sax ndax dafa génnoon. moom it sant bu baax di leen a tamit àdduna moom bu sa mbokk ñëwee rafet na si tamit mu xam ne bëggoon na fee ñëw. yàlla dogal ma nag ci yitte. Baye Ndiaye aussi dañuy noonu. ñëwaat mm. mm. nañu ñëpp ci ñun kontaan nañu. ci àdduna moom yaakaar naa nii rek la. leen gisee tey nga ànd ak ñoom ñoom laa la mos a gisee nga ànd ak ñoom ba pare. ba yoonu yàlla tey ba yàlla def le roi des arènes. man ñii ma àndal tamit ba léegi ñoom laay àndal tey démb ak barki démb kon loolu rek ku ko gis ak war na mën a xam ne ñii lépp lu ñuy def ñu ngi ak seen xel ñu ngi ak seen lépp lu ñu war a def ñu koy mbër gor la mbër jàmbaar la mbër ku yiw la kon vraiment kontaan naa daal yàlla nañu yàlla fay yàlla nañu yàlla taxaw yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu ci barke yoon merci beaucoup laal seen déw mouridisme seen bi leen indi bépp xibaar xibaar. te sëñ bi suñu waxoon rek sëñ bi am na fu ne foo ko toll bu toll.